léegi nag ñu ñëw ci Ousmane Sonko mi nekk wax dëgg yàlla di boole waate xam nga itamit Assane Ousmane lu muy boole. Hmm. Ah, bind na ab leetaram dem ci communauté communité internationale di boole président Macky Sall di wax ay mbir. Hmm. lu muy boole moom boo yaa ngi koy xeexal fii téye dëkk bi kenn du ko jàpp lu muy boole. Hmm. boole na président Macky Sall ba dugal ci ay corruption bi ci réew meeg daa dooleel corruption damaa aaye fii ak lu ne daal wax na ko ci bitim réew ba jébaane président Macky Sall ko ma yàq deram. waaw président Sonko de man mën na ma bindaale ab leetar pour boole ma ak président Macky Sall. Hmm. ndax président Macky Sall saa bu ma ko waxee dina ma dégg. te daf may diglu dafa daf ah, may bàyyi boole ci ci leetar. dafa war a bind ab leetar boole ma ak président Macky ni ma wax ci. man bu ma toogee fii wax ci su ma demee naa ko gis su ma ko bëggee gis gis ko. Hmm. kon euh, incha allahu rabbi li ñu si war a ginnaaw gis nañ toll na foofu dinañ si dox tànk jàmm. Hmm. wax président Macky Sall mu bàyyi ko bu ko defee ñu toog ndox mu sedd ñu bàyyi ko yàlla. ni ko Ousmane problème léegi bàyyi nañ la ak yàlla. yàlla ngeen bàyyi ko ba yàlla léegi kon fi mu doon ko bàyyal dañ koy bàyyi ak yàlla bu ko defee lu yàlla def si moom ñu xam ne loolu loolu la yàlla lu ma neex yàlla hmm. waaw ñee muy boole nag ñun ñoo ko fa njëkk yéen waaw njëkk nañ ko fépp teere bi kay Ousmane fi ne nii amul fenn yéen a ko njëkk foofu fépp lañ ko njëkk ne nañ ko bu dee réew mi réew mépp réew yëpp président yi chaque jour ñun xam nañ ni ñu waxee ñoom niñ ko doxalee bu dee kilifa yi diine yëpp dem nañ fa bu dee Sénégal yi donc ñoo ñu xaw a të booy yi nekk fii ñoo ñu xaw a të pour dégg li ñuy wax suñu bopp mais intellectuels yeeg ñu nekk àddina bi yëpp waxtaan nañ ñoom kon nag xaj na day def li ko li ko li ko yoon may waaye xam na ni loolu du si am ndam. Hmm. waaw du si am ndam du si am ndam. ah oui waaw fu mu jëlee ndam. jërëjëf ah. Alaaji. Ousmane de bind na ab lettre bataaxal euh, jébbal na ko communité internationale bi daal pour jébaane président Sall li mu koy def ak li mu def ci réew mi ndax jaaroon na ko. waa xam nga <clears throat> président Macky Sall euh, bi muy def loolu moom. Hmm. Euh, diaboliser opposition bi. Hmm. maanaam xam nga mënoo tëb tëb rek di duma nit ñi. di duma duma nit ñi. lii loolu. àddina bi ni mu demee. Hmm. mënoo tëb tëb rek. jàpp nit ñi di leen duma teg leen yi nga xam ne moom nga leen teg di jënd ay gaz lacrymogène di leen gazeek di dóor nit ñeeg di tëj. waaw loolu parce que loolu boo ko tëb tëbee def rek dañu lay wax ne dictateur nga. léegi nag pour mu raxasoon boppam dafa tuumaaloon opposition bi ñu wax di ay force kii fi nekk ak ay lii wax laak lële et cetera comprendre nga. Mm-hmm. léegi loolu mu waxoon c'est pour daganal dóor yi bu ko defee nag soo ko mën a duma. Mm-hmm. léegi nag hmm. affaire bi carte gi dafa dëpp. dëpp waaw depuis quelque temps gars yi am na loo xam ni gagné nañ ko ci terrain bi dem nga ba nga xam ni gis nga parlement bu français yi commencé di wax taxawaay bi nga xam ne moom la président Macky Sall taxawee. Hmm. nga xam ne léegi dafa impopulaire ci dëkk bi ba noppi di tuumaal li nga xam ni mooy opposition bi. bu hmm. buggut am wujj loolu yëpp nit ñi gis nañ ko. Mhm. parlement français yi wax ko fi bërki démboo njaay américains yi def ci rapport wax ay mbir yoo xamante ni bii mooy loolu mhm. mu amaat leneen lu am muy loo xamante ni bi liñ naan lu ne fàng kenn du ko jeex mhm. li xewoon ci corniche bi bi soo ko demee wuy yi ñëw àddina bi yëpp ñaawlu ko ci biir loolu tamit pour Ousmane Sonko gën a dëgëral ay mbiram ca bitim réew pour wane ni li ko kii doon tuumaal ak tamit li nga xam ne mooy kii yëpp moom mooy ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg. Mhm. président Macky sàll ki léegi nag lettre bi day gën a confirmer ji li nga xam ne mooy parce que tamit xeex bi boo ko jàppee ni ci biir réew mi rek la. Mhm. day doon njuum ah, xeex bi ci biir réew mi biir réew mi ak bitim réew. maa waa réew mi ñooy voté ñooy ko ñoo loolu vote la. Mhm. mais tey jii mën na am dogaleen mën nañ créer situation de crise boo xamante ni bii mën na bañ a exister ci réew mi mais nañ fexe rek waa bitim réew gëm ko. comprendre nga. nañ fexe waa bitim réew gëm ko affaire yooyu te tey boo waxee loolu mën nañ wax leen non ambassades yi xam nañ mais ambassades yi bu fekkente ni bi tey waa ji promettre na leen leen mën nañu doon complice ak affaire yi yenn rapport yi war a jàll ak pour ñële xam parce que presse yi da ngay soxla opinion bi. Mhm. ñu la wax presse yi wax ne lii la ma bi ñu ne waa léegi nan la àddina bi mën a gëmee lii. donc nag lii Ousmane ko di def nag c'est pour euh, rajaxe lépp loo xamante ni bii Euh, président Macky Sall defoon na ko ci bitim réew gën koo mën a rajoxe léegi nag sampaat boppam nga xam ne léegi nag président Macky Sall koy xool beneen façon xool Assane nee na état bi njëkk na ko fu mu dem waaw moo tax mu ne ma ne waaw li mu wax noonu wax na dëgg parce que xam nga moo jiite woon mbir yi bi mu jiitee mbir yi li mu gëm loon moom laa ne la euh, boo demee parlement français yi bi ñuy wax xam nga yooyu lañ doon wax parce que sax am na lu ñu bëggoon sax ngir ñu voté waale leen ko loolu pour ñu daal di koy rejeté voté wuñ ko Ah, c'est parce que boobaa sax xam naa dóor yi doon na gën a te saf hmm. Hmm. waaye fi mu toll nii léegi eh, lii nga xamante ni mooy parce que bataille la boo xamante ni bi bataille bu am solo la waaw mais xam nga Ousmane tey euh, Macky Sall moom président Macky Sall ji bu ji yanoo ay vidéo hmm. yóbbu ko day am lu mu teg seen i loxo yan vidéo la yan ndax man naa yóbbu ay vidéo yi Ousmane Sonko di waxee résistance mun leen gis ngeen ko waajaay résistance waa léegi mu wane vidéo buñ ne ko Ousmane boo xam ne moom dañoo toj vitre otom ne ko ciix boobu gañ a gën a ku ne ci yax kooku war wax résistance alors <laughs> vidéo vidéo koy tontu. <laughs> wala fi ñu ko takkalee masque yi fi ñu ko dóoree grenade yi. Ah, takkal koy koy vidéo yi su ma kii wane mu wane. ah waaw moom kay fi mu toll nii kay moom boole bi mu boole nii boole na. Hmm. te et depuis quelque temps tamit affaire yi gars yi ñu ngi gën a xam ni yëf yi mooy loolu parce que gis nga Emmanuel Macron rek am na benn vidéo bu ñuy euh, partagé ci internet bi hmm. nga gis léegi taxawaay bi nga xamante ne bi moom la bëgg léegi France taxawee ko hmm. mooy taxawaay bi Ousmane Sonko la mooy taxawaayu nawle fexe Afrique gën a loolu ñi ngi français yi ñu ngi bëgg a dooni nit hmm. parce que tamit dafa am lu ñu commencé di perdre moo tax wujj rek a wóor gis nga wujj day defar waaw parce que bi nga xamante ne bi Russie intéressé wu na ba commencé implanté wu ci kii. Hmm. léegi mi ngi jubbanti France bu baax a baax. français ñi xam ni yenn mi Afrique nga koy bëgg a rëcc. d'accord am na yu bari yoo xamante ni bi tey mën naa bañ a tee mën a ne. Hmm. d'accord voilà.